RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen faté bés cloche notification bi ndax moy tax ngeen di jot suñu vidéo jàngeen jëf ah Adam tax aadam baaxul waaye at bi ma ko jëkkee wax ay intellectuel ay universitaire bind nañ ma suñu nangam nangam ay parti politique sax waaw va di wax seen tradisional traditionnelle xaqiqa ku ëpp doole du benn moo tax Cheikh Hadj Taala anu daan wax ni ci sama sëñ ni ko li nga nekk du métier mu ni ko déedéet diine la diine du métier waaw ñu ko diine du métier kenn du ko dunde diine du métier bu ko def métier di ko dunde doo góor waaw politique du métier ku ko def métier di ko dunde doo yi ñaar benn du ci métier boo ci def métier rek mu tasaatu naa ci benn dëkk ñu dem ca jumaa ja ilimaan ja tarde léegi ilimaan ja ouvrier la amul oto bu mu dugg welo la am circulation ba metti ba ba muy agsi da koy yërëm waaye ba mu ñëwee moo jiite jumaa ja waaw loolu mooy xaqiqa waaw moom daal looy def rekk jiitalal tax Maodo wax ni bokk na ci li ma rëccu daal ñàkk jàng métti sëriñ Aliin ni ko waaw li nga nekk du métti mu ni ko mukk diine la te diine du métti mu ni ko boo doon jàng métti ban ngay jàng mu ni tekk bu mujj ni ko ah li docteur yiy def de neex na ma te mooy faj doomu aadama mu ne ko yaa ngi faj ruux yi de mu ne ko li ma la wax xam naa ko mu ne ko gis nga yent yàlla Moussa ni ko dafa feebar romb ñax ga ñax ga ni ko boo ma baxalee naan ma wér mu ree continuer yoonam dem ba fa mu daan sukk mu sukk fa ni yàlla dama feebar faj ma yàlla ni ko am na ñax koo xam ni boo ko baxalee naan ko wér mu ni ko ban ñax la mu tudd ko ñax ga doon wax ak moom mu dem jël ñax ga baxal ko naan ko feebar ba yokk mu dellu fa mu sukkoon sukkaat fa ni yàlla feebar bi yokk na mu ni ko ndax docteur am na ci dëkk bi mu ni ko waaw mu ni ko demal seeti ko mu dem seeti docteur ba docteur ba seet yaram wi digal ko ñax ga mu dem jël ñax ga baxal ko naan ko wir yàlla ni ko gis nga bi nga feebaragul sama kattan laa doon wone ci mën a uuf njaboot bi nga feebaragul bi nga feebaree sama kattan laa doon wone ci mën a not njaboot ni ko bi nga demee ci doktoor bi mu wax la nga naan wér sama xereñ laa doon wone ci samp pénc ndax bu doon ku ñaan yàlla wér lu docteur yi defati ci kaw suuf lu moo tax daan na di dénk waa Sénégal nit nañu wattu aada waaw dana itam li ma ragal mooy ñu dema dema dem ba diine du mën a daan aada ci réew mi fiy looloo tax mag ñi tiit weddiwu ko ba bi mu fiy jóge nit bu diine bëreek aada rek aada daan ko ci Sénégal xamal ni lu mat a bàyyi xel la moo tee diine ji tey moo tee politique bee tey ndax politique bu aada njattul ak diine ju aada njattul yombul ci Sénégal de yombul Tos serigne bawa si dan wahni dom santesi santesi tahuma sant fibato taxuma toog benen ma toog bu ma amoon beneen ada it toog waaw booba ndax mi li xew ah ma santam mën la jur maa koy donn foo foo ko teg teguwul fen tegul fen moo tax cheikh bi muy laata génn àdduna mu woo ñaari doomam yu góor yi sayid mohamadul kabir ak sayid mohamadul saxir wax leen ni sama ndono bayi leen koog mag ñi da ngeen ada kër ndax aada aada baaxul te man nga ko sos mu tane na dem ba mën na dem ba yàq waaye moom it yàlla cax ko ndax biñ ko nekkoo fii fi bàyyi mu ne aliyu xarasin baraad aliyu xarasin jiitu ko te boobu mi ngi toll ci ay daraja foo xam ni ñépp defe nañ ni lu mu wax du deñ waaye Aliyu Harazim jiitu ko am ñu commencé di jaaxle ci loolu muy dem dénkaane ni na ko sayid mahamadul xaali jullee bu fi jógee bi muy dog fekk sayid mahamadul xaali dem àll tukki nekku fa comme dafa dénkaane woon ni su demee ñi fi nekk di ay doomam pour bañ a xëccoo mag ñi muqaddam yi nañu ñibbi nañu dellu Algérie xale yi jël seen bagaas di ñibbi algeri dem ba ca yoon wa waxtaan ni ñoom daal mënuñu bàyyi jëmmu Cheikh ca Faas dañuy dellu sàcc ko ñu dellu sàcc ko jël néew ba jëme ko Algérie mag ñi ñëw fekkoon ci bàmmeel bi ket ñu topp seen tànk ba dab leen ci biir Sahara nangu ne néew ba mu triste lool ci ñoom ñu continuer jëm Algérie ñu delloo ci néew bi Fass fi ñu koy teg fekk Seyid Mohamadul Ghali di wàcc bagaasam ñu ne ah kon de li mu waxoon ñëw na ndax ba lañ ko dugalaat war nañ ko jullee Seyid Mohamadul Ghali jullee ko ñu dugal ko ci biir bàmmeelam ñu ne kii boroom cër la di doom ya àgg fekk daf leen doon rawale ndax nee na mënuñu dékku opposition xam na ko kon mu rawale leen ñu dellu kër toog fa ci jàmm bu ñu yëg dara naka lañu àgg ci kër ga ba sippi seen bagaas ay tooñkat daanu ca kaw kër ga taal ko Seydi Mouhamadul Kabir di défendre xale yi ak jigéen ñi ñu rey ko tawu Cheikh la mu leen doon bañal ca Fass yàlla fay ko fële mel ni ku ko ni danga ma waroon doyloo rekk pour wax la ni ñoom seen cër yépp ñu ngi ko jële ci nangu nangu mooy lu Cheikh El Hadj Malick daan wax ni lu gën a metti chaise wurus buñ la jox te ni la boo ci toggee ñu fudd sa ndigg nee na yàlla noon lay maye chaise wurus baa ngi yaa ko moom waaye boo ci toggee ñu fudd sa ndigg wax la ni rekk aada lu mat a bàyyi xel la ci sunu réew mi ndeysaan parce que naa ciy waxtaan ak sunu bàyyi bu bare leer tabarkal la muy sëriñ Abdou Lahad Mbacké na yàlla yokk leen mu ni ma sa maam Serigne Touba mujj na kamil bi rekk la teg ci wetam bu fekkee dangay waxtaan si rek dana ko xam bu ko defee mu xëcc ko boo ñëwee ni boo ñëwee ni ma dellu boog ba ca kanam walla ma dellu ba beneen yoon mu ni boo dee dox si farata it ruuxam dana ko yëg bu nga defee boo ñëwee wax farata ne ñu farata yàggul te yooyu yëpp dàq aada la waaw ndax itam li sëriñ Babacar si daan wax ni magu ndar yi ne daan nañu naxasaale ne ndar yi nañu naxasaale ndax seen yaram mucc seen diine mucc ne ndax xam nañu koo xam ne bu ñëwee bu waxee mu yiw waaye xam nañu it koo xam ne bu dikkee bu ñëwee bu ñëwee bu waxee du doon yiw te dañ koy xàmme wallaay mais bu ko defee waxkatu yiw bi dañuy yàkkamti mu ñëw nee kii dul wax yiw nag bu ñu nee ma nga rek ñu sol seen laafa xëcc ko ba ca nopp ya jël seen mento latu diw ci bakkan bi tubarkal ah góor gi mbaatu yiw yaa ngi ci soj ni waaw oh, oh, man kay eh, moom kay tubarkal tubarkal pexe amul pexe amul nee na lu am solo la façon bi ñu ko daan defe wala dee nettali aada aaday réew mi daf ko xam waaye dafa am fu ci tanee Maodo Maodo moom dafa gett aada sëriñ Babacar nag gentul aada ndax yéeram nit ñi waaw dafay raayanteeg ñoom ci wàllu aada rek ba bañ koy xam waaw daan na wax ne aada lu metti la waaye bu dee réew mi nee na boo ci dalee dal bu metti ñàkk ñépp nee na grand mbubb mësuma ko bëgg mukk wante bi fi Maodo jóge dama xam ne bu ma solul grand mbubb ñoom ñëpp ñu dem safara ne ci laa tàmbali sol grand mbubb mais muy metti lool mooy sama woggu bii ngay gis dara la ci man RTV Dakar ñi aboné gul leen gaaw leen fàtte bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jaa ngeen jëf